fexe ba xeex lépp lu di wàllu mbalit ci diwaan bu Ross Béthio loolu moom moo di bëgg-bëggu jaraaf bi Fally Seck loolu yi tax mu daal di jël ay pexe ànd ci ak waa Sonaget ak waa FERA ngir nag jafe-jafe bi daal di dellu ginnaaw ci diwaan bii. loolu nag ñëw ci jamono bi nga xamante ne jàngoro gii di deng moom mi ngi gàllankoor dundinu askan wi. vision maire Fally Seck mooy mooy Ross jafe-jafe bi mu am ci mbalit mu saafara ko. ku ne xam na ni tey si tey Ross Béthio fan yi euh, feebar yu metti mi ngi ci am feebar yu saw ñu koy feebaru deng yu nu yu nu constaté te loolu yëpp dafa ànd ak cet ci loolu nag la maire bi jóg ànd ak ceeg Sonaged pour pour mën a vraiment xeex loolu. ci programme mu bi mooy que ni fexe ba tey commune bu Ross am point de collecte boppam maanaam ay matériels yu nga xamante ni dina collecté déchets yi nga xamante ni dina dina génn ci biir Ross Béthio loolu mooy tax nag environnement bi. ñu nekk ci environnement bu sain te loolu mooy objectifu maire bi te mi ngi ciy def ay jéego yu am solo. mu yamoon nag ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi doog a jóge ci nawet bi bëgg-bëgg ya jëm ci ñu gën leen dolli doole ngir nag xeex bi nag ñu daal di koy mën a yombal. li ñu li ñu li ñu jógee mooy nawet boo gisee dépôt sauvage yi fi nekk nawet bi la. benn tasseuse bi amul euh, amul possibilité dugg ci dëkk bi loolu moo tax ñu euh, euh, loolu moo tax tey si tey dépôt sauvage am ci biir loolu na ñu lëkkaloo ak FERA bi def nañ lancement bi démb tey si tey ñu ngi sur le terrain artère Ross Béthio ñun nettoyer ko ñi nga xamanteni moy lieu de culture ñu nettoyé ko rawatina aussi marché bi nga xamanteni moy mooy Ross ak ak euh, route nationale bi donc lool nak ba tay fera bi euh, SONAGED ñew appuyer ñu encore par rapport ak euh, dépôt sauvage yi nekk ci commune bi vraiment loolu ay djégelu yu am solo yi nga xamanteni vraiment ñu ngi remercier fera di remercier aussi la commune de Ross en l'occurrence le maire Aladji Fally naka noone kuréel yi nga xamante ni moom moo di FERA ak SONAGED seen taxawaay ñu namb ko dëgëral nettoyer li nga xamante ni moom moo di yenn béréb yi nekkee ci dëkk bi naka noone nag ñu woo askan wi ngir nag ñu gën leen gunge ba lépp loo xamante ne setal nañ ko ñu sàmm ko. bëgg nañu fi nga xam ne mooy le grande mosquées yu Ross Béthio yi bëgg na leen jàppale si nettoyage ndax liggéey bi dañ see boole ñaar. dañuy liggéeyal suñu bop liggéeyal suñu askan defaale ci jaamu yalla bëgg nañu mosquée yi nek rosbe ci yépp ñu jëm leen nettoyer bon même armée yi entourement armée yëpp bëgg na leen nettoyer ak yeneen ak yeneen yo xamni yu mel non dal bëgg nañu ci taxaw inshallah allah. bi mom suñ ci impliqué wul population bi sax du dem parce que ñun population bi lañuy ñuy mom lay wax tout le temps nous on travaille pour la population ñom ñoñu ñu jog ñom lañuy ñoom donc euh, il faut que ñom tamit aussi ñu impliqué leen ñu jappalé ñu ci liggéey parce que ñom suñ ci jappul tey lii ñu def nii c'est c'est c'est important ñëw indi engin lourd euh, benn pelle mécanique ñaari camion di topp dépôt sauvage récurrent yi di leen dindi mais suñ ko dindee ba pare ñoom suñu ñëwaatee ñu delloo ko fa donc du am sens. taxawaay wi nag ñëw ci jamono boo xamante ni askan wi jafe-jafe jàngoro ji di deng sonal na leen. waaye tamit jaraaf bi namm xeex ba lépp loo xamante ne dana ñoŋal dundinu askan wii ñu daal di cay jotee naka noone mu namm àndandoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di conseillers municipaux yi waaye tamit yeneen acteurs yi nekkee tamit eh, ci askan wi namm nag am taxawaay ngir nag lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu salte wàllu mbalit ak lépp lu mën a yàq alam gi ñu daal di koy seetal loolu yëpp rek bokk ci li nga xamante ne dañ koy lëkkale mu méngoo ak Les qui qui plan Sénégal émergent et territorialisation des politiques publiques